tey daal dañu amoon mbégte dugg Pakao depuis biñ fi duggee léegi ay jàmbat rek la ñuy dégg parce que sonn nañu lool xam nga soo melee soo nekkee walla soo amee dëkk bu ni mel nga xam ne yàlla daf ko baaxal mu am ndox mu doy muy taw bu doy doy doy am ay dex mu am possibilité suuf su baax a baax doonoon dëkk boo xam ne dafa amoon avenir lool mu mel ni dañ ko seetaan soo waxee xale yi soo waxee jigéen ñi wax ji benn la ñoom sonn nañu parce que waa seeju li ñu yaakaaroon gisuñu ko xalifa Sall président la République dana changer paradigme ma ni ñii ku leen toppatoo ku fi def li ñu fi war def Sénégal naat Sénégal moom boppam Sénégal mënal boppam autosuffisance alimentaire ak souveraineté alimentaire ak buñ ci mënta wax fii gërëñee la te ñoom ji suñu seen bopp ci dara soo duggee ci marché bi lépp lu fi am dañ ko jëggaani lépp dañ koy importer ma wax ne politique yii ñu fi def du ci benn boo xam ne mën na développer suñu réew yi damay expliquer sànq xale yi milliard bi ñuy affecté chaque commune wan leen possibilité yi mu nar am ak mille milliards yi nga xam ne daañ ko def ci mbay mi ak ki ci ci Sénégal parce que loolu mooy voie changement dama ni réew bala moo mënal boppam mu moomal boppam bay dund bay dundal bay jëriñu jàmmu Casamance bi ñun ñëpp loolu la ñuy ñaan parce que nag nation lañu am su fekkoon nation bi dëgërul ba léegi Sénégal tas na mais li fi am ñun ñëpp xam na ci li mu deme li mu jóge frustration la ak révolte mais régler problème mu Casamance dama wax ni man bala moo doon woon problème politique problème social la woon nañu fexe ba waa Casamance gis seen bopp comme des sénégalais yu bokk Sénégal yu ci kenn boolewuleen dañoo bokk di am. di mel di def di doon li ñëpp di doon bi ci des nag ñu développé dëkk bi fii dafa yomb liggéey yàlla may na leen lu ne et pourtant nit ñi sonn en tout cas il faudra trouver une poli des réponses économiques et et peut-être une réponse politique et institutionnelle. Le